Thank you. man 98 a fi ñëw. boobu sama taxa bi sama kër mi ngi fii boo récolte bi damay toog fii di xool oto yi fële ci tali bi MTA boobu nit bëri fi kon nag te Moustapha yàlla dogal na suñu jarbaal te Nadiame ñoo ma ma ma ñoo dikk man defu fii daal liggéey ñu da liggéey fii daal pour ñun pour inondation bi dañu bëggoon mu ñu liggéeyal ñu fii inondation bi même bu defee tali yi amul goudron na na def ci ndox bi mën a dem nit yi nekk seen wax dëgg man sama kii amul ndox ba am na ñu ma dikkal seen kii ñu am ndox kon nag loolu moo tax mu métti ma te ñu bëggoon ma dimbali ma jëlee ci loolu loolu man nee naa la man étranger laa ñu ñëw fi dëkk mu ñëw na tabal yi. wax joxal génn gi. non non non man man mënuma wax. asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. ñun day wax dëgg yàlla sunu gox bi am na ndox bari ndox lool. té am amuñu canalisation bu tawé ñi ñëpp dañuy dañuy jaaxle luñ dox mi amul fu mu jaar bëgg na ku ñu dimbali ngir yalla defaral ñu Kër Massar bi fu mu ne su amatuñu amuñu tali yu baax fii amuñu assainissement bu tawé dañuy bari ndox dañu bëgg japp ku ñu jappal dimbali ñu loolu la ñaan assalam waaw ñu leen di nuyu. non leen ci sànni moy euh, parti du dëkk moy deuxième parti ci Sénégal ah Abdou Diouf moo nu ko wutaloon ginnaaw parcelle ah, parcelle yu njëkk yi amee boobu léegi Ablaye Wade dañu fi defaloon tuyau yi du ci du ci jaar di jog di jàll muy taa unité 14 15 13 12 yëpp dafa am ñax barax baa ci doxus ñu yëg seen terrain yi amut mën defar loolu la ñu bëgg a ah, Macky Sall fekkee ne nun ba nu dimbal mu defaral nu ko te saa bu demee élection fii moo fi gagné saa bu ñëwee parcelles yi moo fi gagné at bu ne mooy gagné ci école kon moom war nañoo gëstu lu solo noonu. jërëjëf waaw Alhamdulillah xana ñun day buñ sañu dal ñu jappal ñu ci dal ndax euh, ndox mi sonal lañu torop gis nga ko maangi ni bon ci la nek ni pour mëna ki ndox mi nit ñi mëna am fu jaar waaw ñun dal problème bobu dal lañu am bu ñu mën am dal su fekkente mëna ñu am ay canal yu évacuer ndox mi wala soit que ñu def ben bassin bu mag utal ko ay tuyau yo xam bu tawé rek ndox mi mëna fa jaar dem dal lol dal ku ñu si dal ñu dina bax trop parce que li mom vraiment moom metti na trop lol motax tay sax liggéeyuma depuis suba ci lii laa nekk parce que ndox mi demoon na ba sës bi tamit ñemoon na ba yéeg ni mais ci lay nekk daal bu ma toogee ba mu yàgg ma ñëw xool su fekkee arrêté dawatul boo ma ñëw defaraat kii bi toogaat kiso yi yëpp maa ko defar nii waaye ñu si jàppale daal ñu ñun daal ku ñu jimbali rek ñu jël daal waaw ok jërëjëf yàlla ñaar seen dikk bi ko yàlla barkeel ba li ngeen ngeen fay laaj yàlla def bu ñu ko def bu ngeen génnee bu ñu ko tegee yàlla def ñu ñu sunu aajo faju ndax fi mu ne daal ak koo ma ku sonn waaye Kër Massar moom sonn nañu ndax ndox mi bari na te digg bari na te defuñu ci dara waaye xam naa daal lu nu mën a am lu dul lu dul lu fi jëlee ndox mi moom moo nu gënal waaw léegi daal lépp lu ngeen ci man daal ba ndox mi jógee fi daal mooy li nga xam mooy la muy muy unité yëpp lu nag unité bu ne daa fees ñépp sonn nañu nag fii mu ne gone mënatu dox mag mënatul dox bu xis nawet xisee jot kon sonn nañu lool kon lépp lu ñu nu dimbalee daal nañu lu nu jëlee fi ndox mi daal moo nu gën a ñor yal na ko yàlla def nag ci seen tànk yi jërëjëf Thank jégalu ci kàddu yi problème bi mooy ñun fii maire amu fi maire amu fi ndax euh, loo xam ni chaque année ngay dund lo ben affaire dafa nekk loo xam ne jaaduwul daal Massar mi ngi nii da ngay ñëw war noppalu mais da ngay ci pompe yu ndaw yi di xëcc ndox pour di ko évacuer ndox mi bu doon yow rek doo am problème mais nit ñi fii jàll moo tax il faut ñu def ko. te travaux yi dañ ñëwoon di kii heure bu gaa yi waree def dara day mel ne am ku leen filtré juk ñu ñëw arrêté lépp ñu nga ko nii ba nu waree def travaux dem nañ commencé ko beneen côté mais ñun fii gisuñu ko def dara gisuñu fi dara gisuñu fi ko fiy def dara ñun ñu fi ne ñooy mujj def mobiliser di def ay affaire te loolu yóbbul ndox mi fii première taw ñu ngi nii. vraiment noo ngi déplorer li nga xam ne moo am fii. mooy euh, ndox mi nga xam ne mooy taa à chaque fois à chaque fois hivernage bu nekk maanaam lii la dund fii da ngay dem ba kër yi fees mbedd yi fees doo am foo jaar te loolu dara waralu ko lu dul alors dañ ñoo fàtte dañ ñoo oublier dafa mel ni ñun bokkunu maanaam ci askanu ci askanu Sénégal Kër Massar fii am na lay Amdalaye Parcelles assez surtout Parcelles unité 14 unité 15 13 12 ba 9 Nous beaucoup, nous beaucoup beaucoup nous beaucoup bon canal bi nga canal b, ci pour un canal provisoire mais canal de suivi. mairie bi fi nekk alors jéemu ci dara jéemu ci lenn mairie baa ngi nii heure bu nekk daaw seen l'année passée donc moo ci mujj bi fi maire ñëwee biñ ko waxee dañ ndox mi mënuma ci dara à chaque fois alors les mêmes paroles la ñuy dégg waaw léegi nag nun ba kañ la ñuy génn ci situation yi ñun mën na koo xam vraiment waaw xanaan Eh, yàlla dimbal ñu suturaal ñu eh, comme léegi Kër Massar érigé nañ ko en département peut-être alors bu fekkee am nañ beneen maire ci sunu commune nord bi xëy ndax peut-être alors mu tane tuuti waaw daal en tout cas dund nañ situation yu métti gis nga terrain terrain municipal bi ni mu mel dafa inondé ba nga xam ne fi ne dañ koo abandonné xale yi mënuñu ci def dara marché baa ngi nii dafa inondé ba presque mën naa la wax ne la une moitié de la alors kenn utilisé ah maire di leen defal ay promesses yoo xam ne kenn xamul kan la nun daal sonn nañ daal nun askanu Parcelles Assainies am dalaay quartier du Vallès gis ngeen ni mu mel de jalul taw boobu nu yow bu baax sax gis ngeen ndox mi Parcelles Assainies ñoo ko jaay wàllu ko defal canal defal lu ñu canal léegi nag ndox baa ngi ne xoolal kër yàlla yëpp

ah ñoom ñoo war a jóg jàpp ci de mais waratuloo ñaan fii nekk nañu fii pana dem nañu boo direction ASLM gendarmerie jóg ñoo bugg daal seen kaw suñu kaw foofu à 2007 2008 2009 c'est pareil moo gënoon a garaaw lii yii yëpp moo moo ci gënoon a garaaw léegi nag ñoom defuñu dara ba léegi góor gi daal moo defaloon benn canal lay Wade mooy canal bi jaar fii gis na bëy bi fii. moo jaar fii dem ba fële defal tiwo yi gis ngeen tiwo yi nekk foofu waaw ah, tiwo yooyu góor gi moo ko defaloon mais kii bi mu ñëwee ba léegi kenn xamul lan la kenn xamul lu lii wawul dara jéemul ci dara problème nag mu ngi nii direction HLM nag chaque fois boo demee foofu mun naa waaw gouvernement bi moo war a def lii moo war a def la léegi nag gouvernement bi kenn xamul lan la dem nañu bosan war nañu boson jéem na lu nekk mais ñoom fi ñu toog la ñu toog. HLM nag ñoo yor responsable bâtiment bu yàqu fii normal normal ñoo ko war a defar balaa ñu la mos a nit. na woon nañu nag fu am ndox fu bu borom mënatul dëkk fa dinañ leen di lambu sa joo leen tey leen lambu sa leen mais ba léegi kenn gisatu leen. waaw. jërëjëf gis nañ sa wax taxawaay tamit la bàjjen Aïda Diagne bu Unité 14. ak di wut nag ku ñu jàppale ci sunu mën mi ñu nekkee. fii sonn nañu lool. at mu jot nit ñi dañuy génn mujj dem di wuti feneen fu ñu dëkk ndax ay problème koñ bi yëpp ñax la amul lampe amul dara dara amu fi. dañoo sonn sonn guddi gi heure boo génnee agresseur yaa ngi taxaw. Hmm. lumière amu fi nii rien. ku ñu jàppale daal ñun ñu jël ndox mi tam la même chose gis nga boobu ba léegi ñu ngi nii di lijjanti machine bu ñu fi teg sax amuñu ko gis nga commencé ni lii ma leen envoyé noonu mi ngi nii fees dell ci koñ mi ndox mi moom foo génn rek ndox la ku ñu jàppale daal luñ jël incha allah loolu la ñu bëgg. maanaam presque def naa fi trente ans parce que euh, kii laa fi dëkk quatre vingt lañ fi dëkk si ba léegi. kër yi yëpp suñu kër lañ suñu kanam lañ ko tabaxee bu njëkk ba lii la woon bu fees dell ñu yaakaar jox fu baax la nekkate yoo dañ koo sëkk waa waa HLM tamit aussi tamit la même chose ñoom toor tam ñoo ko def heure bi fii waroon nañ ko di canaliser gi yëpp nga xam ne ku dëkk da ngay nekk ci jàmm ak salaam am lumière am lépp mais dañ ñoo nax dem sëkk ko ñu yaakaar ne fu baax la nekkate foo xam ne ban kese la noonu lañ dëkk ok incha allah. ah sama xalaat ci mbënd mi de mooy nekk fi rek gis nga kër ga. maa nga ne gis nga sët ya ña nga ne ca kaw man ak màggatum artiste kese la bëgg fu ma dëkk te mun ma kom am fee nag dama la muy bon bon dama faa luye de. te weer wu dee weer wu dee ma fay nak courant nga fa ndox nga fa kër ga boo fa duggee da nga naan macha allah waaye boo génnee ci biti da ngay xuus sama sët dama koy wog ba ca kaw. metti na lool daaw damaa génn ren jii nag dama leen duma du ma génn fenn fa laay dunde ku ma fay fekk fa nga may fekk fenn laa demut ndox mi bari na nañ leen ñu dimbali ci pompe yi bu yàgg la waroon na ñëw ngir yàlla seen seen télé bi nu mu tudd. Tifna TV Tifna TV dimbali nu. Tifna TV <laughs> kenn la rek gis nga koñ bi nii daaw ñi ñëpp dañoo génn dem ca baas ya ñi mën a génn dañoo génn ñi mënut génn dañoo toog. jàpp ci yàlla nekk ci ndox mi jànkonte rek nag di jànkonteeg ndox mi ba ndox mi dem ñii mu dugg seen i kër ñii mu dugg seen i néeg ñii mu dugg seen fu nekk dugg na fa waaye dañoo toog di ko muñ demuñu fenn fii lañ toog ba tey ba ba suñu joomi tey loolu ñu doon muñ nag saafaroogul gisuñu fi dara gisuñu fi dara lu ñu fi indi mbaa la ñu fi joxe mbaa la ñu yëguñu ñu sax dañoo bëgg doon joxe defar fii rek lañ bëgg defar fii rek ba ndox mi dem rek loolu rek lañ bëgg waaw bëgguñu dara lu loolu waaw waaw ñun ñii ñoo leen njëkk ñun 2005 lañ commencé ba léegi xanaa yuuxoog yooyu ci télé bi lañ lañ deful waaye lii ñu def fii ñii fii la ñu waroon njëkkee balaa ñu dem fenn waaye dañ ñoo romb dem yóbbu ko feneen ñun ñooy premier des choses suñu kër yeeg yëpp am ndox la tiwa fees na lépp mu ngi nii di walwal ci mbedd mi amuñu jàmm amuñu salaam waaw. gis nga man sama buntu kër a nga ne ndox maa nga fa fees del fees del ay xeer laa teg pour di ci jàll ndox mi ñëpp la sonal ñun daal bëgguñu ceeb bëgguñu dawlin ku ñu dindi ndox mi dindi ñu ñax yi loolu la ñu bëgg te loolu la ñu soxla canal bi baax bu tawee ndox mi mën a dem loolu la ñu bëgg. maa ngi fii nag may dem lii laay def ñu ne xool ko neex jël ko ba mu dem garaat jël ko nee na jël ko ba mu doy maa ngi lay dem jóoba na ko jël ba ma yegg këram waaw waaw jëlal acca ñu topp ko set fi yëpp fees guddi lay ñëw dikkagul de des na des na de daa des lu baree baree bari moom soxna yi daal mën naa ne mu ngi nii